fan nañ ko féete tey moo nekk 140e la ñu yaree loolu lañ xam ndigal li xew koy nangu dañ koy nangu teewul ñu ngi koy féete xam nañ li mu toll si ñu ngi koy màggal ci ay ñaan di ñaan si jàmm Sénégal. tey dañ ne appel autrement naka nga fas yéene dundee appel bi. dund bi dinañ lu julli woor julli julli ñaan julli ñaan surtout teg ci li nga xam ne moo dugg ci. Sénégal dugg ci àdduna muy cent quarantième appel ñuy ñaan suñu borom ci bis bi yàlla na ko faxas ba duñu déggati benn benn kaa kaa ci Sénégal. comme ni daan amee amee ko mais ñu ngi berne suñu njaboot comme bis bi lañu am ñu ngi berne suñu njaboot dinañ lekk dinañ naan dinañ def lekk mais teewul bis bi du bisu lekk du bisu naan bisu toroxlu la quoi ñun xam na ni mu toll suñu wéetal suñu borom lañ ñaan yàlla defal ñu jàmm quoi loolu lañ si am pour lancer ko laayeen ko waxee rek su ko ci ndigal rek. moom lañ joxoon mu jógee ci kilifa yi nan ko dox rek bu ñu ko doxee rek dinañ ko respecté bu ñu ko respecté dinañ am ndam parce que ñun ci ndigal la ñu mos a xamee ci la ñuy wéyee ci la dee di ñaanal Chérif Abdoulaye mu yàgg fi ñu yàgg te di ñaanal jàmm laayeen ni di leen wax ni appel si jàmm. ce appel demee nii premier jour Cambérène mel nii bon ku ku fi ñëw dina xam ne am na lu tax mu demee nii quoi mais ginnaaw loolu moom na si sa bu baax xam ne lii la waroon deme ak feebar bi mais teewul gars ñu koy màggal seen kër ñuy yor seen kur di ñaan parce que tey jii bisu toroxlu la. ndax ba dafa gàddaayoon woote te ko tey bisu bisu toroxlu la teewul ñu ngi koy màggal suñu biir kër yi nii ñuy jël seen cours di ñaan di ñaan yàlla def fi jàmm après bi gën a jëm si kanam ñu ngi koy def lu mais beneen façon lañ ko defee quoi bokkul ak euh, ak ni mu doon mel ni ñuy ñëw comme noonu parce que dañuy éviter feebar ba yooyu noonu laayeen moom jeune bu nekk laayeen muy góor muy jigéen ñëpp dan dan dan tëggu si kilifteef moo tax bu kilifa yi waxee nan bàyyi nangam rek doon obligé bàyyi lépp lu nga xamante ne ay mumbaay la ak yooyu noonu ñu bàyyi ko fas yéene ko def suñu biir kër ak suñuy kuréel ci ñaan. waaw ñu santaat yàlla rek ñu julli ci si si yonentam Seydina Limaamu di ñaanal xalifa bi moom Seydina Baye Abdoulaye yàlla bàyyi ko fi yàgg fi bon di yàlla ci ay ndogalam rek parce que comme ni ko gars yi waxee ñun ci kilifteef la ñuy dox ci commission bi lañ bokk ci commission sécurité bi doon liggéey ci appel bi doon ko waajal boobu léegi mais depuis bi li xew Sénégal bi mu xewee ba kilifa yi ne leen bàyyi lépp mu sedd danoo bàyyi lépp dox ci kilifteef daal ndax ñun laayeen ci loolu la ñu xamee xëy na yàlla ni la ko bëggee woon quoi parce que heure bii ne daaw ak yeneen année yu fi jàll fii mais lu yàlla wax moom kenn mën na si dara yàlla ni la ko bëggee xam nga ñun tamit nii lañ koy defaree xam parce que yàlla moo moo xool ah. ba ba lii doy ka rek mu def na ko ñun jaam ñoo ko war a nangu yëg-yëg buñ si am daal mooy lu ma la waxoon sànq noonu la ko yàlla bëggee waaw parce que ñun ay kilifa lañ am si dëkk bi suñuy kilifa moo ñu jox ndigal nanu na ku nekk na toog seen kër ñu defee ko appel en famille noonu ko waxee nag noonu lañ koy defee xam waaw waaw jàmmalaay heure bi daan na fekk Cambérène foo jaar doo mën a jàll circulation waxuma la oto mais oto nit ñi da ngay jàll doo mën a dem nit ñi bari mais comme ni ma ko waxee rek mooy di sant suñu borom ndax ñun ci loolu la ñuy dox mooy jàmm da ngay da ngay da ngay da ngay gëm sant yàlla di ko feet ak suñuy kër di ko feet ak njaboot di bëggee ak ñoom di yor suñuy kurus di ñaan suñu borom yàggal fi xalifa bi ak lu mën a am waaw du du suñu bëgg a bëgg nag mais dogalu yàlla la te dogalu yàlla moom jaam da koy nangu waaw kon ñu ngi siy sant borom bi daal lu mën a si ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp sant ñëpp bi daal dundewoon ko lu dul wéyee waxu kilifa suñuy kilifa nee nan nan ko yebbi nan ko kon nag ñoo ngi wii kuloo suñu kër yi ñooy togg suñuy añ ak suñu njaboot feete suñu njaboot lii nag moom guleet guleet waaye nag sant yàlla rek dara waralu ko lu dul jëfe ndigal wéyee ndigal rek ñun dañoo ami kilifa ñun suñuy kilifa bu ñu waxee wax ji waaw la sant wax ji waaw la sant kon nag amuñu lu dul way euh, jëfe waxu kilifa yi ñun leen di ñaanal ñu yàgg fi lool yàlla sàng leen balaa num sutura di leen sant di leen ñaanal lii lépp ci musiba bi xew si àdduna bañ a lor kenn moo tax ñoom ñu digal ñu lii kon nag ñoom suñu kilifa yooyu ka ca commencé ca mag ba ki ci gën a tuuti ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla sàmm aar leen yiir leen sàng leen balaa moom sutura yàlla na appelu déwén dàq appel bu fu mus a jaar yàlla dàqal ñu musiba bi musal ci àdduna bépp ngi ñaan yàlla saafara jàngoro bi yàlla bu ci kenn loru ci barki Baye Laye ormay sëy naa bi appel bi nag tey ak suba yëpp moom ñoo ngi sunu suñu biir kër yi ak sunu njaboot di ko feete ñoo ngi koy feete tey ak suba incha allahu rabbi dara manqué wul. soo wane nettali sa enfance bi ngeen nekkee xale daan dem affaire bi ak tey nga toog nii ci ñaata at ban yëg-yëg ngay am. waaw affaire bi moom metti na ndaxte heure bi moom daan na fekk dëkk baa ngi xumba surtout fii ñu toog nii baas baa ngi tege ñëpp ngi toog ñuy feete appel bi affaire bi neex waaye vraiment lii moom guleete waaye guleet daal man ma gis ko ba ma juddoo ba léegi guleete waaye guleet mais nag sant yàlla rek sant yàlla rek. ñooy sant ñoo ngi sant. di wax ni nag ñun nag ren moom wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax ndaxte danoo tënk su ndigal ndax appel bi wax dëgg yàlla instant bi moom fekkoon na daaw ñu ko doon dund dund boo xamante ni nii macha allah ren moom ñu ngi ci sunu kër yi ak sunu njaboot ndax loolu la appel bi laaj aussi loolu la ñu suñuy kilifa dénk. xam nga ñuy ñaan rek euh, yàlla na fi yam ba déwén rek ñu mën a appel appel bu neex si kàttanu yàlla xam di wax aussi li ñu tere appel nga xam ni mooy feebar bi yàlla na ko suñu borom jële mu set fi wet ci àddina bi. waaw sans appel sentiment yu ni am mooy du duñ ko tuddee xol bu naqari mais dañ naan xol bu wéet lay doon ndax heure bii nii fekkoon na ambiance yi gan yi ñëw njaboot gi nekk fi ñu koy dund xam di gën a firndeel suñu gëm si naa di gën a dëggal wootam bi encore kon ren bu ñu ñëwee toog nii wéet ak njaboot gi maanaam xol yi ñoo wéet rek mais yàlla xam ne ñu ngi dund appel bi suñu biir xol di wax ni rek li bàyyi laay ni ajiboo daayee laay ñu ngi koy wax suñu biir xol si kàttanu yàlla ak mbaaxam chaque jour que jëfee fu ñu toog rek dem ni bàyyi mooy Momadou. di ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko ay déwén yu bare bare bare bari te feebar bi dugg ci dëkk bi yàlla na ko fi yàlla génne yamale ko fi ci barke bàyyi laay war mooy roowalaa isaa yàlla bu mu lor benn doomu aadama ñu ngi sant suñu sanga yi di leen gërëm di leen ñaanal waa axlu bay ci rasulillahi yàlla nañ fi yàgg alasaan ak seeni te wér te wérle lool yàlla dool li seen xéewal li seen sutura dolli seen teraanga ñun gëm nañ ni limaamu mooy rasoolulaay moo ma démb moo ma tey yàlla nañu yàlla eh, eh, dundal ci diineem ray ñu ci dekkal ñu ci barke war may roowalaay Issa. d'accord nu ngeen préparé woon ak gan yi. waaw préparé woon nañ gan yi bu baax a baax a baax a baax. Mhm. préparé woon nañ leen bu baax. Mhm. Euh, dugub bernde yi mhm. def teraanga yi yëpp. mi ngi nii nag dara changé wu ci ba léegi ñu ngi def suñuy teraanga bokk ak suñu njaboot. ci barke bàyyi laay war may roobalaay isaa léppay baax incha allah yal na yàlla sempi jàngoro ji ni dëkk sànni ko ca àll ba bañ ko teg benn doomu aadama